À euh, notre collègue Modou Baragay, Ahmed Aïdara, le suivant. Monsieur le Président, honorable député, chers collègues, Monsieur le ministre de la Justice, maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. Monsieur le ministre de la Justice, merci beaucoup pour l'affaire Birame Souleye de nous avoir écoutés ak euh, diligence bi nga xamante ni def nga ko ci. Je tenais à le dire parce que boobu ba léegi ñu ngi siy jokkoo eh, am na nag ñoo xam ni nee nañ ku def lu la war kenn warulaa gërëm ñu ne déedéet am na nit ñu xam lu leen war te defuñu ko donc boo ko defee dañ lay gërëm merci merci beaucoup. alors fi mu bëgg ñëw monsieur ministre de la jeunesse monsieur le ministre de la justice mooy taxaw naa fii du haut de cette tribune wax ni le Sénégal et un géant sur le plan de la diplomatie de Senghor à Sall en passant par Diouf et le Sénégal a fait des miracles sur le plan diplomatique et loolu aussi jàpp naa ni naa ni lu ñu war a mën a corriger la ndax bala ngaa digle sangaay da ngay sangu ba pare mënuñu ratifier ay convention au niveau international ba pare te ñu respecter li nga xamante ni mooy cour de justice de la CEDEAO wax na ko dal na ñu nag ci Karim wàdd dal nañu ci Khalifa Ababacar Sall à chaque fois que cour bi joxe li nga xamante ni mooy ay décision le Sénégal penn à respecter li nga xamante ni mooy décision donc jàpp naa ni nit ñu ko joxee euh, ci wàllu euh, parrainage bi donc war nañ ko mën a corriger parce que parrainage bi aussi dafay am ay représailles contre les électeurs parce que bu fekkente ni da nga ne benn candidat rek nit ñi xam nañ a priori kan nga war a mën a woteel et loolu jàpp naa ni lu ñu war a mën a lu ñu war a mën a changer la loolu moo tax ñun ñëpp xam nañu ne Sénégal benn kilifa diine du fi pare parrainé kenn parce que koo parrainé ñu xam ki ngay jàppale amul benn agent de l'administration buy parrainé bëgg sa parrainage ñu xam fan nga ko jëmale lien de parenté yi aussi dafay indi problème da ngay am sa benn mbokk ngeen bokk geño wala ngeen bokk men mu nekk candidat mënuloo ko parrainer parce que bokkoo leen li nga xamante ni moom mooy jëmukaay yi nga xamante ni aussi mooy euh, les opérateurs économiques peine à parrainer parce que tout simplement bu ñu la demandé benn parrainage loolu dafay indi ay problème yu métti métti donc jàpp naa ni war nañu mën a xoolaat naka la ñuy def ba dugal ci texte bi loo xamante ni un candidat pourra au moins parrainer deux personnes et loolu moo waral euh, li nga xamante ni déposé nañ ko te war ci ñëw tout à l'heure et je crois aussi que waxoon naa la ko en commission comme le code général des collectivités locales ni mu explicité ci li nga xamante ni moom mooy les maires et les présidents de conseil départemental qui sont des catégories juridiques avec des statuts yoo xamante ni c'est bien défini dans le code qu'est-ce qui empêcherait ah vos équipes à nous-mêmes de reformuler li nga xamante ni mooy texte bi pour mën a dugal li nga xamante ni mooy maire ak président de conseil départemental ci texte bi nga xamante ni dana mën a gën a leer parce que quand on parle d'exécutif de chef d'exécutif local moi je trouve que c'est un peu vague parce que ça peut prêter à confusion au niveau déconcentré c'est le c'est le préfet le gouverneur le sous-préfet au niveau décentralisé c'est le maire et de conseil départemental donc jàpp naa ni pour bañ a à confusion ëllëg si ay interprétation di ci am war nañu ko mën a leeral ba mu gën a leer alors beneen mbir aussi moi je pense que un bon système de parrainage est assujetti nest à la fiabilité à 100 pour cent du fichier électoral Union moo ñu mujj a aidé à faire l'audit du fichier électoral mais lan la ñu waxoon 98 pour cent du fichier électoral c'est fiable loolu mën nañu ci dem élection je suis d'accord mais il y a pour cent yoo xamante ni fiabulul te élection bokkul ak parrainage 2 pour cent d'un fichier électoral de 6 millions de personnes monsieur le ministre c'est 160 000 personnes imaginez kenn ku ñëw dal ci 160 000 personnes yooyu donc sa parrainage du baax donc jàpp naa ni il faut faire en sorte que le fichier soit désormais stable nga xamante ni du am benn jiixi jaaxa marge yi nga xamante ni mooy marge d'erreur yi ci am ñu mën ko régler buñ ko régler là je pense que booba danañ am un très bon parrainage donc pour vous dire que Sénégal ñu ñëw di am ay candidature fantoche ay candidature fantaisiste ku jóg rek ni candidat en l'état actuel a plus de 45 candidatures donc nous sommes d'accord sur ce filtre à condition que aussi li nga xamante ni mooy suñuy préoccupation ñu mën ko jël en compte je vous remercie merci cher collègue la parole est à notre collègue Moussa Diakhaté le suivant.